bule ko niitoo ne ku la dam taal tàkkul bule ko niitoo ko niitoo ne ku la dam taal tàkkul bule daram laa koyoolee ak maasak maasoo gi mi njëkk maar wandal daram laa koyoole bule ko niitoo néeg bu lëndëm taal takkul bule ko niitoo néeg bu lëndëm ak maa sat soo gi mi dega maar wandal daram laa koyoole bala maa bay way barum saxi be gën dilem subu di mooñ rabatu di wal gannaaw di ko tàccu bay di rootib teen gi jëm taxaw ci jaar batu batu ba bàyyi ku taxaw si géej ko ma defu njool dengoñ du ma gore ma niitoo ne gul dem taal taakul bule ko niitoo asalaamaaleykum waa Sénégal bu leen ko niitoo. yéen bu la dem taal tàkkul bu leen ko niitoo. barkalla macha aji goy caali ñëwaat na. ci émission bu ngeen gisee li ñu ubbee. ubbee nañu ndaanaan boo xam ne kenn dootu ko présenté ti. ajaratu ndiku cuun. bu ndey ngom bam bi loor tubaarkàlla allah yaayu xaadim ah Sénégal tey yëngu na naan naan bii ñu leen indil dina mën a way ndax alaaji du sekk ma ca àjjana dina mën a way ndax ndey ngom bam dina mën a way ndax baat bii ngeen dégg am na xale yoo xam ne ba ci man mii toog tey buñ nee ku ku leen bu leen ko niitoo dangay laaj kan la waaye nag soo bëggee xam ku mu doon dangay ñëw ci ëttu ndaanaan yi ci la télévision 7TV télé bi ñu nduru ba nopp di ñu dajale laa télé qui nous rassemble et mbaa dimanche nga jàpp rajo yi nga xamante ni macha allah dañ lay tegal démb bàjjen nuyu nañ la ziar la ñu ngi la fekk fii ci sa kër Petit Mbao waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli Seydina Muhammad ngoy maa ngi lay nuyu di la ziar ma ñëwaat li ngoone yaa si mbi ci Congo ma seta maa fay ngaay ak ndey mbay ay yaay jigéenu garmi mbay tubaarkàlla nga boole nag dérangement ak déplacement ànd ak sa clique ngeen fekk ma fi Petit Mbao kon for na ci man ànd ak waa 7TV yëpp la ñëw fekk ma fii sama kër mbay ah loolu dama ciy kontaan lool ndeysaan ma ciy kontaan lool nag ak sama invitation surprise bi muy Adja Marème Jong borom LCL ndeysaan ñu bokk ak moom nag LCL moom mooy présidente bi mm. Aïda Gadj di vice présidente mm. tubarkalla lii foor na nag ci man lool ma mbay maa ngi nuyu Sénégal gépp macha allah Badiane mhm. émission bi nag concept mu demee mhm. El Pambay moomu ci sa wet sama doom di doomi bàyyi ci njaga mbay mhm. nga dékkal ko micro bi tuuti rek mu nuyoo continuer xalamam te téyel ko tubaarkàlla Pape nuyu nañ la ah Ngoy mm. xam nga tey jii day ndeysaan fii ku fi ñëw ku ne mm. ndeysaan boo ñëwee da naan teg. waaw waaw. boo doon wax ca kaw. Eh. boo ñëwee da nga naan teg. nday saan ndax moom bu ma juumul. damay wax ne Jurbel laa ko njëkk a gisee. ndeysaan. moom mii maa ko njëkk a gis Jurbel. moom ak Pape Doudou Seck ak Xaadim. ndeysaan ndax ñooy gën a nekk xale. ma ñëw waxtaan ak ñoom nuyoo ak ñoom. ndeysaan. ñu loo xam ne lu leen neex. Mm. moom nag boo baag léegi bàyyiwul. Mm. day jékki-jékki woo ma. ma ñëw ñu ànd. mu yëkkati teraanga jox ma yëkkati yére ne ma boo demee joxal ma sa jabar loolu mi ngi koy def. Hmm. te loolu xam na ne doomam laa ndax moo sama papa woon. Hmm. ba tax na fii nga ma indi foo ma mës yóbbu neex na ma waaye fii nag moom saf na ma. ndeysaan yàlla na yàlla guddal fanam. wéral cër yi yàggal taxawaay bi te lépp lu moo xamante ne bii rek amu hmm. ci aar at mi ñu nekk nii. yàlla nay. ubbeekoom ci lépp waaw ci loo xamante ne bii lu mu doon xaar la ci mbaax mm-hmm. yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def ci na ko yàlla def ci barkeem ci barke leeru laa ilaha illallah moom la El Hadj wax bu suñu bàyyi El Hadj Njagambay doomu yaa wëy li nag bu nee wëlay wëlay ñëpp dañ koy dégg mm-hmm. parce que way xam na ko ci deretam la nekk tubaarkàlla bàjjan dikku nag di bàjjan ci Pambay mu njaga mbay waaye di bàjjen ci man mi aji ngoy caali maa gar mi mhm. ndax moo àndoon ak Cheikh Mbay rek tubaar kàll kii ñu feggool nag nga xam ne mooy invité surprise bi mhm. di Adja Ndeye Marème tubaar tubaarkàlla macha allah nekk eh, LCS ci président la Diop mhm. macha allah moom la ñuy jox kàddu gi tamit mu nuyoo ndax moom la bàjjen di ku def invité de d'honneur macha allah tey ci bis bi nga xam ne mooy ëttu ko ndaanaan. asalaamaaleykum. maa ngi nuyu Sénégal di nuyu waa 7TV di nuyu nag kilifa diine ak kilifa aada yi di ñaan ci réew mi jàmm di kontaan nag tey ci invitation bi nga xam ne ajaratu Ndickou Thioune bi nga xam ne ndaanaan la te kenn werantewu ko def ma invité invité d'honneur am invité surprise ci 7TV ci ëttu ndaanaan yi may nuyu nag Adja Ngoy maa ngi lay nuyu. maa ngi la wax ni émission bi dafa am maanaa. te émission bi dafa baax. Hmm. parce que ndaanaan bu nu gëj a dégg rek. Hmm. da nga ko wëri seet ko. te loolu mooy rôle. Hmm. te réew mi dafa soxla loolu ci culture. ma ñëw fi nag tooge fi nag ci fédération nationale bu LGN Lawbe Géwël Ñeeño Ràbb Ude du Sénégal. kon nag ñu commencé waxtaan wi rek. ba ci kanam ndeysaan waa dégg ngeen li wax macha allah. bàjjan. la boo nee ndikku cuun ne làmb muy sa mbaax ñépp xam la ci bàjjan sa digganteek làmb lan la ba tax buñ nee wayu làmb rek ñu ne na aji ndikku cuun dimanche bu jotee ba ndikku cuun ne yaane mbaroo waaw ngoy loolu nga ma laaj mbay kontaan naa ci lool parce que ajaratu ndey ngoom bambiloo sama yaay rek doy na woy làmb ndeysaan te moom moo ma dugal mhm. moom ma dugal ci làmb booba 17 ans la am mhm. boo tabarkàlla macha allah làmb ji mhm. sama yaay moo fa nekk du sekk xaar mbay ma jaaga aji ndey mari ñang ah. aji fas sàmb du ma kodd ko ñoo nekkoon ci làmb kon sa maam Ndeye Ngom Bambilor wayandoo na ak du sekk ci làmb ak ñi nga lim. booba du booba du sekk xale la. ndeysaan man ma am 17 ans. Hmm? sama yaay dugal ma ci làmb. ndeysaan jàngal ma nag tubaarkàlla. Hmm. wayu làmb jàngal ma cosaan lu ma mën ci woy rek sama yaay moo ma ko jàngal. Hmm. ci wayu làmb. mais bu dee way tubaarkàlla folklore ak euh, njuga sama mag moo ma jàngal. moo ma jàngal woyu cosaan. Mhm. ak folklore tubarkalla man ngooy xanaa xamoon a jigéen ñi man maa si njëkk a woy orchestre. booba njugo mi ngi ngalam baobab. Hmm. bu Moussa Pose. waaw daf naa ndikku wàdd kaay nga yéeg way. mën nga ñu fàttalikul tuuti ci way boo fa daan way ngalam. ngalam rek waaw. bu ko nit. bu ko nit bi. barke sëñ bi ko njëkk a waye moom mooy sama fitis moom laa njëkk a booba xale laa sax ndeysaan. ndeysaan booba mm, mère Mbayang bi nekkoon RTS. mère Mbayang. Mbayang. waaw te gaañu. Mm. Mbayang Niass. waaw moom la defoon indicatif. Ah. comme ni Alima Ndione defee layo bi jeeg rek. di ko teg heure buy ubbi. Mhm. Zik mhm. ngi noon noonu la ma sama yaay jàngale wooyu làmb. waaw ba ma nekk ci làmb ji na tubaarkàlla. Mhm. booba sax ñu bari. bés bu ñoom bu ñuy woy làmb danaa xool leen dof yi di woy làmb. xoolal loolu. mais léegi benn élément gënu riis làmb. déedéet mbay benn élément. macha allah. Mhm. làmb ji léegi macha allah amatul tànku ginnaaw. dëgg la te nag Gaston xaali yàqu ci dara ndax moo njëkk a tëggal sama yaay. Hmm? mu jubilé mu jox ko salon. Mhm. jox ko 4 millions. moom Gaston xaali Mbengue. moom Gaston xaali. de ñu ngi koy nuyu bu baax. ba sama yaay màgget ba jëm mag. ba jox ma lengee nag dama ndikku ñaanal naa la dégg nga ma ci ngarab làmb jaa noonu ndeysaan doo fa gis daaloo ragal mën nga ñoo demal ci benn wayu làmb rek boo xamante ni mooy way wi sa yaay daan way di ko ubbee làmb bàjjen man bu ma xëyee man laa xala balaa dara naaj e way yàlla ne leen kaare waay kon kaaro yàlla soxna ami gay bu ma xëyee man gay laa xala balaa dara naaj yàlla jëjoon naa tàggoo fara jogom yaay dameel fara jogom yaay dameel Cheikh ami gay man bu ma xëyee géy laa xala balaa dara naaj Seex Ibra sama mm. maam Seex Ibra ba maam soxna amee borom maamu seex yi li ni toppe doomi garmi yaa ngi ci muñ mu metti gore ba nu wekk la man daal bu ma xëyee man laa xala bala dara naaj kon na kaaru yàlla hmm. ne kaare jigéenu ilimaan loo bu ma xee laa xalaat balaa dara naaj macha allah bu ma xëyee laaxal la balaa dara naaj musuma xam ne loolu la ñuy wax te macha allah ak ndaanaan yu mel nii sama bàjjen ndikkum yi tubaarkàlla macha allah lu mel nii mooy tax xale yi émission bu mel ni ëttu kër ndaanaan El Hadj Ablaye mbay peex wax na ma ko sama baay bu baax boobu sama nijaay ni ma sa émission bi dafa riche man peex kenn gisatuma ci dara waaye émission ëttu ndaanaan yi riche a tax bi nga ma woowee ma invité la sama kër nga ñëw def ko man kon loolu laay delloosi émission bi nag nii rek lay demee dimanche 16h tubaarkalla ñu teg seen i teg seeni i teg seen i kaas jàkkaarloog aji ngoy caali ak invité fii ci télévision 7TV la télé qui nous ressemble et bi ñuy nduru ba noppi di ñu dajale te moo ñu dajale fii. ci kër ku yaay yaay ju yàlla baaxal di bàjjen aji di ku cuun bàjjen sa diggante ak du sekk ci way yi ci yar bi ci teggin bi ci li mu def ci yow boo amee ak fàttaliku lan nga ñu mën a wax. ci Doudou Seck. waa Ngoy. ndeysaan Doudou Seck nekk li nit ku laabire nit ku baax. làmb da ko jooy. ndeysaan. Doudou Seck sama mag la woon. ndeysaan ñëpp dañ ne woon sama yaay ko jur. oh. laabir yàlla nag far boole maag moom parce que bu sama yaay musaa jóge làmb ja da koy topp si ba ci kër gi. Mm-hmm. fekk man maa ngi jàng école. ko defee mu xool sama saak te mu dem bitig ba jënd ko def oh. la mu ne ko mu ne ma kii mooy du la ah, baax la de parce que li ma duggee na ko. Mhm. ko sama saag. musuma indil nag benn problème lu yëre moom lu bëgg ma rek te yàlla tax. Mhm. wax dëgg yàlla. bëggoon na ma moon na ma barke Seydina Muhammad yàlla def ñu sëy am ci xaadim. xaadim waaw. dinañ ñëw sax ci moom. waa xaadim waaw mu ngi noonu mais nit ku laa biir la. problème mu jàmbur rek moo ko moo taxoon muy xeex. ndeysaan. histoire du jàmbur rek moo ko doon tax a xeex. ndeysaan laa biroon na rafetoon na xol. yal ko yàlla xaar àjjana. yal ko yàlla yërëm. Mm-hmm. yal na ko àllaaxiraam ah, gënal àddunaam. ndax ju tudd na Seydina parce que nan rafet moom jot parce que tudd na Seydina Mouhamed ñaari yoon. ko ñaari doom tudd ko ñaari yoon doom tudd na ko ñaari yoon ah, boo ma laajee ci moom. Mhm. naa ci sawar pour tontu la ci. Mhm. ndax xam naa ko. bàjjen boo amee ci moom ak fàttaliku. loo xam ne anecdote la bu ngeen wayandoo ba nga yëg ni way nga lu la gën a ba nga gis waa combat sans ak euh, Moustapha Guèye. Sanjambur kuy Sanjambur bàjjen. Sanjambur <laughs> mbër la woon buuse la woon sax. ndeysaan ndeysaan. Arène Maxari Thiam. Arène yàgg na booba Faas. waaw fala Arène Maxari Thiam nekkoon. Mhm. waaw. mu way fa lan ban way boo ñu mën a fàttali. astafurlah Sanjambur ak Mbaye Guèye. ak Mbaye Guèye Tigre na Faas. waaw mën nga ñu fàttali way ba. way bi xanaa. waaw bàjjen demal ndeysaan. heure bu ma woyee léegi te bu ko Moussa woyee lu ma woyee dama koy jox. ndeysaan bu ma xëyee laa xala bi ah. barke Seydina Mouhamed heure bu ko Moussa woyee. Mhm. Mm. la ma woyaan lépp moom laa koy may. damay dégg ñu naan Samba Yaane ngaan xaw ma bàjjen demal foofu téyel micro bu baax nga dem foofu. géew bi a samba yaa ndengaan njaay ku man sa moroom daan léegi diigi joor na su leex sargaw tabaski faa mbooj xaali faa mbooj baabakaru faa mbooj gasoo xaali baayu makar mbeng lay woo man gasoo du lay woo mm. man gasoo xaali lay woo Gaston Mbengue ngi doo seen moroome ah, samba yaa ndengaan njaay ku man sa moroom daan léegi di gi joor su lee baski faa xaali faa mbooje Babacar faa mbooj soo da fal sa fi bàyyi waaye bàyyi fi gàcce alaaji xaali mbeng du mooy sa baay baayu makan mbeng lay woo ñi doo seen moroome dama koy ñaane rek wér ndeysaan dama koy lu wér gasoo yal na ko yàlla may wér ndeysaan gasoo mu njëkk a tëggal sama yaay ci làmb mhm. mu jubilé lu musaa tëgg sama yaay koy way mhm. doom tamit jaar ci ay tànkam makan mbeng lu mu tëgg maa koy way barke Seydina Muhammad lu mu tëgg maak Ndey Faatu Njaay ñoo koy way ndeysaan ak Majaañ ndeysaan ñu daan ñoo waykatam makan ndeysaan mu koy ñaanal nag moom tamit mhm. lii bàyyam am ci la mu am mu am lu ko ëpp mhm. ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ñu am am ko macha allah dégg ngeen bàjjen dikku cuun li mu wax garçon muy nit ku baax garçon nag tubaarkàlla macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla sa borom yëkkati ko defal ko jàmm ak salaam gudd fan ak bàjjan waaw Sorano moom. Mhm. ba fa Sona Senghor nekkee. xam mhm. loolu yàgg na. Mhm. ci la yónni woon jaay Samb mbuub ne ko. ban at la bàjjan loolu. loolu yàgg na. d'accord booba xale laa de. ndeysaan mu ne ko rakku njuga jàng boobu waa bu neex la am te booba tubarkal la. saan dama bëgg. jaay Samb nga demal ma ci El Hadj Ndiouga ak maire Ndeye Ngom Bambilor. pour ñu dimbali ma rek jox ma ndikku mu ñëw Sorano liggéey sa bo Sorano xam ma Sorano na. Mhm. moo nekkoon directeur Sorano. waaw njugo ne ko waa amul benn problème keroog fa la Ndiaye Samb añee maa togg keroog ma ko fàtte mu seebu yàpp. ndeysaan léegi su ma ko defaree ba pare léegi dina ñëw Sorano liggéey. koo fa fekk yow ak ku booba. Mm. ñoom Soda Fall jotuma dem de. jotoo dem ba tey non non. Mm. daf ko ni su ma ko defaree ba pare. waaw. dina ñëw dugg Sorano. Hmm. booba ñoom soo dafa la fa nekk xaar mbay ma jaaga ñoom ñëpp ñoom daaro mbay ñoom ñëpp ñu ngi woon Sorano booba. Mhm. loolu yàgg na. yàgg na waaw yàllaa dogalu ma dugg fa nag mais tubarkalla macha allah soo defal nee na ba tey ndi ko am nga place Sorano. ndeysaan ba yàlla baax na. baax na waaw nga place Sorano ba tey na xale yi delsi na xale yi jàngiwaat nañ dem ci ndikku cuun nañ dem ci mag ñi fi des nañ jàng gëstu. nañ xool tubarkalla macha allah. Cheikh Ami Gueye moom ku baax la. far yoo ya daake ya daake birimaak may sa tend joor yaa moom ngal gee woo da hmm, borom maamu seex far yoo ya kee far ya daa ami gay ku baax nga se ibra faal sa maam mm, soxna jaaraay sa ana borom maamu seex yee ana jigéenu ilimaan loo cheikh biraamay sa maay ibrahima xalilulaay sa baay li ñuy toppe doomi garmi yaa ngi ci yow muñ nu metti lool cheikh ami gay waaw waaw si ibra faal sa maam la cheikh ame maam jaara sa maam jël nga ndam yaddaake far yaddaake waaw waaw nu ana jigéenu elemaan loo aji paalaay sa yaay waaye seex looy sa baay seex loo sëriñ looy baayam sama promoteur bu ñaawul baa nge elemaan looloo tëgg wooma saamaan looy sa maam li ñuy toppe doomi garmi yaa ngi ci yow ilimaanoo baayu Babacar sama promoteur bee boolu naa la ilimaan fu ma yeen doo di la waxtaane doo fa ñaawe bu nu yendoo di la waxtaane doo fa noonam goy du jëw moroomam mbañ waali ngoone sa maam mbay sa yaay la yaddaake maa jogu bu sareer waajaa ngi toog waaw waaw sira leen mbokk yaam ay dagaaj mbokk yaam aji marem tëggoo mbokk yaam aji xara jaxate manam jogu la présidente esel bi ana jigéenu lat joobe sama càmmiñ sama doom jee bari jom yaay présidente CNG yaay président CNG be ana la Jóob laay woo Sadio Basse yaay naxa la fi bàyyi waaye bàyyi fi gàcce li ñu toppee doomi garmi yaa ngi ci yow mu ñu metti lool woon naa fu ma yendoo di la waxtaane doo fa ñaawe aji marem la waxtaane doo fa ñaaw tubarkalla fu ma yendoo di la waxtaane doo fa ñaaw far yoo ja daake di hmm, wayu buur xam nga ni way tubarkalla lu tumuranke la ci jamono ji te nit da ci daan defar toogaayam mook sa sàmbay mbayaana yam dinañ ci ñëw ci kanam tubaarkàlla doomi buur doomi gor li waraloon mag ñi daan def mañ gàcce ci mook woy yi ñoo yem danga ko daan woy doomi buur mbaa gone mbaa xale mu am mu am frein xam ne lii war na ma xam ne lii waruma xam ne fii laa bokk xam ne lee laa war a def bu ko defee même bu ko ko fitam mayee bu ko ko xelam mate mayee fitam da ko koy xañ ndax li mu doon gor kon foofu laay duggee ci Adja Marème Jong maa jong buur séréer moom mi nga xam ne mooy invité surprise bi bàjjan joxal ma ko micro bi ñu waxtaan tuuti ndax kàll macha allah li ngeen séq yéen ñaar ba tax ñu def ko invité surprise Adja Marème ginnaaw bi ñu la nuyoo sa digganteeg sama bàjjen lan la. Euh, Ngoy. xam nga Adja Ndickou Cuun dafay ndaanaan. ndaanaan boo xam ne. wax dëgg yàlla Sénégal. dañ ko war a ni ma ko mën a tuddee dañ ci war a. bàyyi xel ci moom. bàyyi xel sax. mais dañu war a ci moom. mooy mm. tànk ci moom. di tànk ci moom ci li mu xam parce que Sénégal suñu amee ndaanaan bu toll ne Adja Ndickou mu nekk ci culture nekk ci làmb ji li nga xam ne ñun ñoo ko moom di ci woy woyu cosaan di ci woy li nga xam ne ñun ñoo ko moom wala wutiwuñu ko fenn ñoo ko moom suñu alal la muy suñu trésor defe naa ni réew mi dañ ko war a seet fonk ko tey bu doon bu doon ci Europe en Europe ñii ay icône culturelle la ñuy doon dëgg la dañ leen di defal ay monument dëgg la donc. tudde leen ay rue. tudde leen ay rue. Mhm. tudde leen ay place parce que tey jii. aja andi mi. Mhm. ni mu ndekkee ndaanaan ci biir làmp mhm. parce que woy bari na façon. ñii ñu ngi way ci stade yi ñii ñu ngi woy ci ci concert yi ñu ngi ci fu ne. mais moom fi mu nekk la. dafa nekk loo xam ne culture Sénégal la mu moomal ko boppam ñu moom ko. wutiwuñu ko fenn. dëgg la kon ku mel nii dañ ko war a jàpp. def rendre ko hommage. Mhm. parce que Sénégal léegi bala ñoo rendre hommage nit fekk nit ka deena. dëgg la wala ñu ñu ni euh, nit ki xam na nañu talaam wala xam na fekk nit ka deena. nit da nga koy valoriser ci bi muy mhm. dund. dëgg la da koy valoriser. Mhm. ci bi muy dund. dëgg la te it ku mel ni Adja Ndickou Cuun ni mu toll. dagg la ci woy bi mu bi nu commencé. mu def dooree fii ma soola mhm. da ngay xam ne kii dafa jàng musique. wallaay dafa jàng musique dafa jàng musique. dëgg la waay. ba nga xam ne macha allah ku mel nii tey mhm. normalement. Mhm. ba mu tool dalee way ba tey. président yi fi nekk yëpp war nañu ko teral. war nañu teral ndiku président de la république. maa ngi koy woo à travers ma voix. Ah, mais mooy dëgg waay man Adja Marème jong présidente fédération. LGN law bi géwël ñeeño et rab du Sénégal. te xam naa ni le président Macky Sall. nit ku bëgg culture la. dëgg la nit ku bëgg cosaan la. dëgg man maa ngi koy woo mi monsieur euh, le le président la république. Macky Sall maa ngi lay wax ni la Adja Ndickou Thioune mi dama bëgg nga recevoir ko. nga teral ko. nga rendre ko hommage. à travers làmb à travers la lutte bi nga xam ne ñun ñoo ko moom. maa ngi ciy woo aussi monsieur le ministre. Lat Diop ministre des sports surtout saa xewar Fatma boobu. ki nga xam ne dafa valoriser nag jigéen valoriser culture parce que man mii ngay toog nii di wax ak yow dëgg la wax dëgg yàlla je suis la première communicatrice du Sénégal nga ni ma loolu la yàlla dogal te moom moo ko def d'accord moom moo ma ko def ngir émancipation de la femme mm. ci parité mm. ndax xam na ni lu góor mën jigéen mën na ko tey ñu créé mu créé bi ma créer fédération LGN mm-hmm. moom moo njëkk a taxaw ni man kat damay dooleel law bi géwél ñeeñoo ràbb yëkkati ay millions yu bari jox ñu ko ni man damaa bëgg géwél damaa bëgg ñeeño damaa bëgg ràbb parce que sama juddoo tol noonu te ku bañ ñooñu dafa fekk amoo loo leen may kon moom it maa ngi koy woo ci mu toog ak Adja Ndiku Cuun recevoir ko ndax Ndiku dafa def loo xam ne dafa rëy daf ko woy dëgg la dugg studio kaset woy ko woy woo xam ne dana traversé léegi ah, ci ci ci dana ko way léegi dana ko way léegi ngeen dégg li mu way Lat Diop monsieur le ministre des sports may wax nag ni ku toll ne ndiku ba léegi amul kër mm-hmm. ndayam teel a dee def lu nekk ci aar ci làmb nday nday ngom mm-hmm. jël jël héritage boobu mm-hmm. jox ko ndiku ndiku yàq ko. dëgg la ndiku yàq ko pendant 17 ans nga nekk ci benn carrière boo xam ne culture sénégalaise ko moom. wàlliyaanuñu ko. abbiwuñu ko. ñoo ko moom tey ndikku mii dafa war a dem en Europe ah Sénégal di ko yóbbu muy représenter la musique traditionnelle de la lutte au niveau international ci tubaab bi parce que ndikku mi ndikku mi trésor la de. Mm. trésor la kon ñun dañ ko war a valoriser may ñaan nag président Macky Sall ndikoo ngi nii doomam feebar feebar pendant des années xaadim xoolal li mu woy ci coupe du monde xoolal li mu woy ci coupe du monde woy ko Sadio maane woy ko joueur yi c'était moom moo nekkoon euh, moo nekkoon presque sunu su sénégalais yi moo nekkoon seen seen seen woy fétiche dëgg la heure bu ñuy football dañuy teg xaatim mu woy woy woo mu woy Sadio maane doon dugal bi 1 dugal 2 dugal 4 dugal 3 xam nga te lu mu woy rek yàlla dugal na ko dëgg la xaadim feebar boobu ba tey gis ñu benn ku ñëw ndi ko woote fu nekk. waaw foofu laay ñëw duggee tuuti ñi nga xam dañoo nekk ci làmb ji. mais dama bëgg wax. mbër yi mhm. waaw dama ciy bëgg a waaw d'accord demal demal. dama bëgg wax ne ndiku mi. waaw instant bi daf ko waroon a fekk moom kër. d'accord te ndikoo ngi luwe. ndiku ba léegi amul oto. te ndiku chaque jour ci làmb ji moo fay jiitu. te fii lay jugee. fii lay jugee fii Petit Mbaaw bi di ñëw ba foofu. te ndiku bokkuñ ba Ibamaar ba ba ba ba ci stade bu bees bi des fois xaaja guddi la fii dikk. d'accord ci in ci jigéen dama bëgg a wax ne même làmb ji. Mm. amal nanu njikku ndikku kóllër euh, njukkal. Mm-hmm. tey ñoom ñëpp suñu defoon ni Gaston def ak yaayam. Mm-hmm. kon ndikku tey kenn waxatu ko waaye loolu nag dama xam ne ah njiitu réew mi mën na ci dara. Mm-hmm. président Macky Sall. waxal ki nga xam ne tubaar lépp luy baax ci Sénégal ci moom la feeñe petrol bi tu baar tubaarakàlla lépp mu defar tali dimbali njigéen ji njirimi te jabaram it dafa baax madame madame la première dame Adja Marème Faye Sall dafa baax Adja Marème Faye Sall mm. maa ngi lay woo ci ndiku man Adja Marème Diong présidente LGN bi mm. fédération bu mag bi maa ngi lay woo te xam naa ni nag nit ku baax bu ko déggee dina ci dox. dina ci wax la waay dëgg la waay. muy sunu càmmiñ di suñu xarit. ki nga xam ne nag moom moom LGN presque. Hmm. muy Alaaji Mbay Peex maa ngi koy woo. dina ko dégg naa ko baax kat bi nga xam ne Alaaji Mbay Peex géwalu Sëriñ Tuubaa bi ki nga xam ne moo boole fédération LGN ñëpp uuf leen di seen bàyyi di seen xarit man Adja Marème jong maa ngi lay woo. maa ngi ciy woo nag bon volonté yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi te Sénégal ñor leen dama leen di woo ci ndaanaan bii. ndax naanaan bi dañu war télévision yëpp nag à travers toutes les télés dañu war di génne Adja Cuun parce que li muy woy xale yi war na eh, Ndickou dafa war a sax war a ibbi école da nga tey jii bu fekkoon ni dañ la jàppale da nga war a am école école boo xam ne dafay jàngale ci culture lutte di jàngale ci culture way man de loolu laa xam ci da nga dugg ci fu am solo mm-hmm. foo xamante ni da nga ma bëgg nga joxal ma sam bàjjen tuuti rek ma am lu ma ko laaj bàjjandiku yow ni ngay loolu nag peex laa koy wax alaaji mbay peex mi nga xam ne nee nga mu ngi ci seen fédération bi mooy bàyyi fédération bi moom laay waxal LGN bi euh, parce que tey ku mel ni booy Niang ku mel ni Modou ku mel ni Balla Gaye ku mel ni mbër yi fi nekk ñu ngi leen di tàllal loxo ndi ku cuun dégg ngeen lim leen wax carrière am commencement ba fin lépp mu ngi ko def ci làmb te bu dimanche jotee te ndikku cuun wayul day mel ni kenn wayul la euh, du Njaay Rose ma ca àjjana waxoon ne ku ma bàyyi ba ma dem nga doog ma honoré wala nga may defal dara bugguma ko waatal ma ko ni ma barke sëriñ Babacar bu boobaa bugguma ko kon yéen tamit feebaru xaadim bii dinaa ci ñëw léegi laaj ci sam bàjjan parce que ñu ngi ci njeexitalu émission bi li ñuy dese bariwul ci ay heure te bëgg nañoo dugg ci affaireu xaadim te li ci des bariwul yéen mbër yi yéen a ngi tabax seeni kër bu doon làmb rek la way amul kon du neex ambiance bi du am aja dikku cuun mii amul oto amul kër di luye génn ne fi mu nekk xale xaadim doomam du sekk jur ko génn àddina mais lan lan mooy seen war a nekk seen gest ci xaadim mi nga xam ne mooy doomam lan moo war a nekk seen gest ci ndikku mii mu fi bàyyi kon donc loolu woo naa leen ci yéen ñépp du jaan ko loolu sa loxo laa koy teg sama nga sama frère nga gar mi maa ngi la ci woo Aziz Ndiaye yow def ko lu baax nga yàgg bàyyi njaay wëlbatiku leen ci ndikku cuun mii ngeen jàppale ko parce que jàppale ndikku cuun loolu mooy liy dëgg ëttu kër ndaanaan yi nag lii rek la fi nekkee fekk ndaanaan yi nga xamante ni yàgg na way te ay yaa way li lañu ñu indi leen fii tegal leen ko dimanche 16h ngeen seetaan ko ci télévision Mbadiane Xaadim nan la feebaram bi demee waaw ngooy xanaa metti rek te sonn. metti ne ko trop nag. dëgg la xamaa xaadim ku xamoon xaadim. mu nekkee xale mën a woy loolu jongo ma rafet. jékki-jékki li dal ko. man ngooy yuuxu naa fu ne. man suma taxaw ci internet ngir sam bopp de. li ngeen ma kaasal nii. waaw ah. mosuma to ko kaas fenn. pour ma taxaw naa jàppal leen wala dimbali leen ma. Mm-hmm. nee na ma nee na nee na ma sax sama yaay namul di taxaw ci internet di di tàllal loxo man maa tax mu taxaw ci internet nga suma bëti mais man duma taxaw ci internet. di ñaan kenn moom bëti mën nañ ko faj. bëti ah bëti day kii doon na ci jéem maali Gakou daj na ci lu ne nag Malick Gakou. daj na ci lu ne. mais fondation Marème Faye Sall. ñu ngi lay tàll loxo bind naa leen bind naa leen ba sonn waa jël leen xaadim mii sa bàjjan dikku cuun nee na bind na leen ba sonn jël leen xaadim ngeen faj ko te xam naa ne loolu bu ci Marème fay sàll jotee di ngeen ci am euh, ah am naa ci yaakaar de ndax lépp lu mu dégg moom def na ci lu mu mën mooy yaay seex kon bàjjan waxal ak euh, Macky Sall mhm. président de la République nga wax ak soxnaam Marème Faye Sall te nga woo fii nit ñi à travers cette TV la télé qui nous ressemble et nous bi ñu nduru ba noppi duñu dajale te nga wax ak Ablaye Mbaye peex mu ñëw fekk si la. dégg nga mu ci ngaraab bëgg nañ bu ñu jugee fii Cheikh ah papi bëgg nañ bu ñu fii papa. bëgg nañ nag lii ndi ko am ci ku ko dimbali parce que am sa doom muy way bool bëti ko ay bëtam muuru te fekkoo ci mooy sama taaw moom baayam dem muy taawam bàjjen waxal ak ñoom. fi du sa nekkoon ah xëy na dinañ dinañ réagir. Mhm. du sa nekkoon. xëy mhm. ñu réagir. mais fi mu nekk nii ma dama télé bu nekk ba barki démb def Fadel Dakar Buzz ñëw na sama kër. Mhm. génn xaas bara jox ko xaadim. Fadel mhm. nit ku baax la. Fadel même Fadel. borom Dakar moom xol bee rafet. fu ne yuuxu naa fa ngoy. man dama sonn man xaaral ma toog. bàyyi lépp ci loxo yàlla. waaw waxal fii ci. ndax tubaarkaala def na lu ne ci réew mi nag. du set. bi mu gënee nekk xale tubaar tubaarkàlla macha allah mi ngi ci làmb ji ba ni mu génne àddina normalement sax waroon nañ ko tëggal waroon nañ ko tëggal dara sargal ko boog mu jox ko ay doomam ah. parce que man li ma jaaxal làmb ji xanaa war sax làmb kenn ñu ne boog làmb ji tey ki ko tëgg. Mhm. day sargal Adja Ndickou Cuun. xaay ma wax la. musuma ko dégg. déglu ma mel ni mel ni Mor Mbaay. moor Mbaay. Mor Mbaay xaritu Kanj. waaw. moom moo ma tëggal euh, drapeau stade ba ma tudde ma ko moom kese moo ma sargal ci làmb te defal naa fi nit lu ëpp loolu barke Seydina Mouhamed promoteur yi fu ne jaar na am na ci ay promoteur yoo xam ne dama leen a jàppale ban na. Mhm. menn ma tëggal drapeau ci làmb stade Iba Mar. Lydie Nicolay. tudde ma ko Lydie Nicolay ku baax la sama doom la. ku baax la xaar ci xaadim ak yow. ah man de wax naa fu ne dégg nañ ma nag wax dëgg yàlla dégg nañ ma mais nag du ma continuer tamit di wax man bu doon man sama bopp man du ma taxaw fenn di tàllal loxo mais sama doom ay bëtam moom moo jékki-jékki gisul dara loolu la mais man du taxaw fenn di tax tàllal sama loxo kenn xanaa samay géer xew la woo ma ma teral ma samay géer ñoo may jàppale. Badiane du ma taxaw fenn laajte samay géer a may jàppale. looy tàggoo ak lan ngay wax waa réew mi. Mm-hmm. nga jox Adja Ndeye Marème mu tàggu ñu teg. waa pour nu jàppale ma rek. Mm. parce que 17 ans laa dugg ci làmb ji. 17 ans laa dugg ci làmb ji. di jàpp awu sama yaay ba sama yaay màgget. ba Gaston tëggal ko mu jubilé. ba ni sama yaay génn àdduna. man dañ ma war a jàppale ci làmb. dëgg la waay. maa ngi tàllal loxo nag président Macky Sall. Mhm. ak Marème Faye Sall. Mhm. yaayu Cheikh. dëgg la xam naa daf ko yëgul mais bu ko yëgoon dama jàppale. ñoom Ndeye Sala Diop ñoom ñëpp naa mhm, naa leen ñoom ñëpp sama sama bëtu doom yi. waay dañ jàppale ci làmb ji. dëgg la waay war a jàppale. réew mi sax ñoo ma war a jàppale. waaye maa ngi tàllal loxo ñëpp nag di sama bëtu doom yi. man tamit lu jàppale parce que bëgg naa oto. waaw war naa am oto di ko dawal. wallaay dëgg la jigéenu kese laa di dugg ci ay taxi dem làmb ja wóorul. am déet dan ma war a jàppale. waxoon naa leen nag ni leen. émission ëttu dafa am concept bu mu àndal. muy lan tubaarkàlla lii ataaya la. ataaya nag. tubaarkàlla warga la warga wi bàjjen bëgg mu am tur te tur wi moom la ñuy tàllal loxo tubaar la ñu ngi koy tàllal ministre la Diop ñoom ñu ñëw doon sponsor bi comme moom mooy ministre des comme moom mooy parrain bi à vie lañ fas yéene te am nañ yaakaar ci ni à travers Ndeye Marème Diong mii dina ci jot te bu ci jotee dinañu am réponse macha allah lii nag warga la te warga bi war naa am tur tur wi nag tele téléspectateurs yi nga xam ne da ngeen di seetaan dimanche 16h ëttu kër ndaanaan yi ànd ceeg aji mooy caali ñu ngi leen di déglu di leen xaar tubaarkàlla macha allah. kaas bi de yow laa ko tudde bi ci des papi macha allah sama doom yi nga xam ne ñoom laa na ci émission bi ñu baax loolu bëgg ma ñu ci remercier nag tey moom dama koy bañ a fàtte tubaarkàlla euh, Pape Mendy ak Semu ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaara ndax Semu macha allah mooy monteur bi Pape Mendy nag macha allah moom lañ yàlla booleel mooy réalisateur bi Papis Mbaye Adama Modou juuf fàtte ñu ngi àndoon nag ak yéen macha allah ci émission bii ñu naan. tukkaanaan yi ñaari caméraman yi ma àndal nag kenn ki mooy Papi Diop Papa Diop ki ci des mooy Cheikh na Cheikh Sadbu ñoom laa àndal ci émission ëttu kër ndaanaan yi na ñu xaar nag am na ay ndaanaan yu weex incha allah lu ñu fas yéene àndak ak yéen ci émission bu mag bi ñu naan ëttu kër ndaanaan yi Adja Ndeye Marème kon tubaarkàlla tàggoo bu dul tàggoo bàjjen nga tàggoo rek macha allah. waaw Ngoy maa ngi nuyu waa 7TV. Mhm. di nuyu sa caméraman yi nga àndal. Mhm. wax dëgg yàlla ñi xale yu baax di nuyu nag sunu xalamkat bi nga xam ne ndaanaan la Pape Mbaye la Njaga Mbaye di sa baay yow boo xalamee war ngaa xalam boo woyee war ngaa woy wallaay dëgg la lépp ci sa deret la waaye nag ah di kontaan ci yow ndeysaan jërëjëf ndax réew mi dafa soxla mhm. wax dëgg yàlla ay émission yoo xam ne dafay indi valeur mhm. day indi eh, day day fettali mhm. xale yi ci nu bokk parce que léegi euh, presque valeurs yi dañu dañu dañu réer te lii mooy cosaan mm. te tubaab dafa wax ni mm-hmm. ku perdre sa culture mm. amatoo dignité déedéet bay amatoo repère mooy ku koo xamatoo boo xamul sa cosaan mm-hmm. amatoo repère mooy da ngaa réer te réer baaxul ci mm-hmm. réew ndax réew culture moo ko yor culture moo ko yor te euh, waykat yi fi nekk. war nañu mbappat. mbappat dafa baax. ci lépp nag ci dans ci plan yëpp mbappat dafa baax mbappat dafa baax ci way dafa baax ci làmb dafa baax ci politique dafa baax ci lépp kon nag may ñaan sa émission bi yàlla na ci yàlla def barke monsieur le ministre bi nga tuddee émission bi muy sa parrain ëttu ndaanaan yi nga ni moo Lat nga ko tuddee waaw ministre des sports incha allah tuddee nga ko koo xam ne war nga koo mën a tuddee lu nekk mhm. ndax turandoom Lat Dior Ngoone Latiir mhm. gis nga ko noonu mooy borom ñaani bañ na ndeysaan la nag mhm. man mii di jigéenam ndeysaan di communicatrice bu mag bi di présidente fédération LGN tubaarakan law bi géwal ñeeño ndikku mii tey boo gisee saba toogaay bi tey mu def ma invité d'honneur am ndikku dafa bokk ci fédération bu mag boobu di ndaanaan yu bari nekk fa nag. ndeysaan kon nag maa ngi nuyu waa LGN yëpp. Mm-hmm. di nuyu sama membre bureau bi ñoom Aïda Gaaj Adja Mariam Tëgg Yaxara Tunkara Kine Aliou Seck Fallé Guèye maa ngi leen di nuyu di nuyu nag ndaanaan yi nekk ci biir LGN yëpp. fédération nationale présidente nationale yi ak internationale maa ngi sant di gërëm Sénégal di gërëm waa it 7 TV di leen ñaanal ëttu ndaanaan bi ah. dana ñëw nag ci mm. fédération bu mekk mag bi incha allah tubaarkàlla tàggoo naa ba noppi Pape kontaan naa hmm. mbañ waa li ngoone yaa sin mi ci kongo masata maa fay ngaay may naa ko aji nday mbay sama yaay alaaji Seydou Masamba tubaarkàlla macha allah tubaarkàlla macha allah ana ngooy mbay ana jigéenu gar mi mbay laay woo aju ndey mbay sa fekk naa ko màkka mu teral ma ngoy mbay sama xel dal na ci sama doom ju jigéen ji sama xel dal na waaw waaw bañ waale ngoone sama xel dal na ci ngoy mbay ngoy mbay sama doom jànge e waay sama xel dal na ci ngoy mbay aji day mbay mooy saay sama xel dal na doomi buur bu dawee ñaaw ngoy mbay jigéenu gaar mi mbay laa ana ngoy laayoo borom seet TV ana ngoy sama journaliste baa ngi ana li di tapé mi gar yaa ngi ci omu ñu metti loolu gore ba nu la sama xel dal naa ci marim jong ma jong buru séréer sama xel dal naa doomi buur bu dawee ñaaw ndeysaan jigaamu jalwaar jigaamu jalwaar jigaamu jalwaare déglooti leen ma wax ak ni réew mi laa bëgg woo Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV est au canal 10.